الحمد لله حمدا كثيرا وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد بوكنا سي غنالي يالله سبحانه وتعالى دفل خيط الاسلام باخا جيم لن باخا يوننت بي غنا تيد سي يوننت مي اك جانغالاي ييغا خامتاني مو غنا مات سي جانغالاي يوننت بوب عليه الصلاه والسلام نيو اندي اي تيرالين سي والو دينه اك اي جانغالاي يو خامني مو غنا مات ييب يو خامتاني جالون mu jàngal xetam xam-xamu ñu jitu ak xam-xamu ñi nga xamanteni bi ñoy ñëw ci lool la xetam rawé ña nga xamni ñoo leen jitu won ci ay xet fete kaw itam kep kuy ñëwati ci seen ginnaw ken dootu leen dab ñom xetul islam bu dé jariñu nañ ci jangalé yoy deug deug jariñu mu bokku ci jàngale yoy nga xamni ay jàngale yu kawe la ay jàngale yu am solo la yu yu leeral nit ki yoonu diinem ak yoonu addunaam la li nga xamni yonnate bi alayhi salatu wasalam dan tok bam yàgg rek mu nettali ko ci ay xew-xew yo xamni jallon na yoo xam ne lu bari lañ ci mën a jëlee ci ay njariñ tiré ci ay enseignement yu bari mu daan jékki-jékki nettali benn xew-xew bu jàlloon nettali ko ci façon boo xam ni dafay marqué esprit yi ku ko dégg rek daf lay marqué day des ci sa xel doo ko gaaw fàtte ndax doomu aadama dafa bëgg nettali léeg-léeg mën nga ko jox benn leçon yi rek jàngal ko ko te lëkkalewuloo ko ak xew-xew bu jàlloon da koy gaaw a fàtte waaye bu dee loo xam ne xam na ni lu xew la lu nit defoon nga nettali ko ko mu mën caa jëlem njàng njàng moomu dafay gën a gaaw a des ci xelam ba du ko fàtte loolu yonent bi alayhi salatu wasallam daan na ko def lu bare bari bokk na ci loolu hadith boo xam ne abdullah ibn umar ibn alxataab di ab sahabi bu mag doomu khalifatu umar radiyallahu anhuma dafa nettali ne bis dégg na yonent bi alayhi salatu wasalam muy nettali di wax ne am na ñetti nit ci lu jiitu woon ci lu jàll laata ñun suñu xeet bi di ñëw laata moom yonent bi alayhi salatu wasalam muy ñëw ci lu jiitu woon ci ay xeet mu ne ñetti nit mës ñoo dem ci àll di dox seen soxla di dox seen yitte ba mu guddi am na ci yenn riwaayat mu ne xëy da doon taw mu lëndëm xamatuñu fu ñuy dem ñu ne nañ dem dugg ci am xunt muy benn pax boo xam ne mi ngi ci benn montagne bañ fa duggee ngelaw leeg taw bi waddal benn roche benn xeer bu mag mu jóge ci kaw euh, montagne bi di bërëngu di bërëngu ba ñëw tëj bunt bi nga xamante ni fa lañ duggoon mooy buntu xunt bi nga xam ne fa lañ duggoon di xeer bu mag a mag bo xamne ne mënuñu ko pous mënuñu ko dindi ñu nekk ca biir xamuñu nu ñuy def biñu ñu xol xol xol xamuñu lan lañuy trouver comme solution ñu waxtaan ci seen biir def shura nga gis ne yonnate bi alayhi salatu wasallam daan na digal ben nit mu bañ di tukki ñaari nit ñu bañ di tukki bu fekke mën na nekk mu ne buñu nekké nekkee ñett nañ jiital kenn da ngay gis li day wanal day wane timit liñ naan mbolo moy doole bañ nekké ñett dañoo tok waxtaan ci seen biir xalaat génn bi xalaat génne itam yamul ci kenn rek ci ñoom ñett ne moom moo def la ñu xam ne moom la ñu xalaat waaye kenn ku nekk participer nga ci kon loolu di wane tamit li nga xam ne mooy barke mbooloo ak boole seen i xalaat ñoom ñëpp ñu xàcceendoo dóorandoo yàlla defal leen barke ci loolu mu jural leen njariñ bi nga xamante ni waxtaan nañ dañ ne li ñu mën a jële fii de li ñu mën a muccal mooy ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala kon xel yi dal di dellu ci yàlla bi nga xamante ni bi seen pexe jeex na bi nga xamante ni gisatuñu sabab ñu dellu ci ki nga xamante ni moom moo nekk ci ginnaaw sabab ñu daal di ne nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu dellu ci ñaan ñu ciy jëlee tamit njariñu ñaan rawatina ci jamono joo xamante ni jamonoy njàqare la jamonoy xat-xat la jullit bi lu mu ñàkk-ñàkk ay pexe dese na ñaan ñaan mooy loo xamante ni kenn du ci lott ak loo lottu lottu ci ci def dara ñaan moom doo ci lott mu yëkkati say loxo ñaan yàlla subhanahu wa taala kon ñuy jëlee ci loolu njariñu ñaan rawatina ñaan boo xam ne ñaanu ku jaaxle la yàlla subhanahu wa taala mom moy wuyu ko xamantene dafa dem ba lot dafa dem ba ñak pexe kon julit bu démé ba mbiri metti ci mom tar ci mom lolu bu mu xaddi ko ci yërmande yàlla subhanahu wa taala nay ñaan fu mu tollu di ñaan yàlla subhanahu wa taala tay bañ wax ne ñaan na waye kenn wuyuuma yàlla subhanahu wa taala dina dégg ñaanam dina nangu ñaanam ñu dal dina nañ sukkandiku ci suñu jëf bu baax ñaan yàlla ci loolu la kenn ci ñom dal di tuddé jëfam tuddu bobu mu tuddu jëfam nekul lu muy bàkkoo ci digganteem ak yàlla waaye loolu lañ tuddee tawassul bil amali saalix mooy da ngay sukkandiku ci jëf ju baax joo def sa digg ak sa borom nga am ci yaakaar nga sukkandiku ci loolu ñaan yàlla yàlla may la loolu ñaaneen la waaye gis nga ñoom ba ñuy ñaan sax pour wane ne bak wuñu seen jëf di wax yàlla may ma nangam ndax defal naa la nangam mel na comme da ngay santage yàlla mbir mi demewul noonu pour tegginu seen digganteeg yàlla dañ ne allahuma in kuntu faaltu dhalika ibtigaa wajhik fafruj anna ma nahnu fihi yàlla bu fekkente ni loolu ma defoon sa jëmm ji rek moo tax ma def ko kon xettali ñu fi ñu nekk nga génne ñu fi nga gis ne daf ko def ci sikki sàkk gu muy sikki sàkk ci jëf ja ndax dëgg-dëgg yàllaa taxoon mu def ko loolu di wane ne nit waroo waru ci sa bopp waroo waru ci say jaamu yàlla ba yaakaar nga baax nga baaxaay goo xam ni war ngaa mën a daal di dogu xaacu rek ñaan yàlla yàlla defal la ndax lu baax li nga defaloon yàlla loolu dara waru la ndax yàlla nangu na comme déet ndax nit ki bari na ay galankor yu mën a dox sa digganteeg sa borom ba jaamu yàlla yi ngi def yàlla du ko nangu li nga mën a xam rek mooy ne jaamu yàlla bi wér na li ñu tuddee asixa mais am na beneen martaba bu tudd alqabul alqabulu axassu min asixa muy nangu nangu moo gën a sew wér wér gi mooy condition yi daje na ci rek def nga ko niñ la ko sante waaye ginnaaw bi nag ndax yàlla moom nangu na ko am na yeneen yu fi mën a nekk ci ay gàllankoor yu tax yàlla du ko nangu moo tax ñoom ñu ne kon bu fekkente ne yow yàlla lii ma def yaa taxoon ma def ko kon nit dangay xëy na di jëf di am rafet njort ci sa borom waaye di bañ di waru ci sa bopp di dogu ne li ngay def ci lu baax yàlla nangu na ko loolu nga delloo ko ci xam-xamu yàlla ñu daal di kon sukkandiku ci seen jëf yu baax daal di ñaan yàlla muy ñetti bunt yoo xam ne ay bunt yu màgg la yoo xam ne tudd nañ ko ci xadis bi benn bunt bi bunt bu rëy la muy buntu sant xéewal xéewal gu yàlla jaarale ci nit mu ñëw ci yow nga delloo ko njukkal sant ko loolu def njëkk jëmale ci ñaari waajur di feeñ ci xadis bi beneen bi ci des mooy mën a def bàkkaar xëy na dara doxul ci sabab yi nga xam ne mooy sabab bi àdduna sa digganteeg nga def bàkkaar bi waaye nga fàttali fàttaliku yàlla mbir fàttali la yàlla tax nga bàyyi ko te fekk ne mënoon nga koo def nga téye sa bakkan not sa bakkan ba bàyyi bàkkaar te xooluloo ca bàyyi ba nga ko bàyyi keneen ku dul yàlla beneen aslu bi ci des mooy kóolute ñu wóolu la ci alal wóolu la ci loo xam ne yëfi jàmbur la nga sàmm ko ba delloo ko borom donte sax nekk nga ci situation boo xam ne ku ko aajo woon nga ñetti usul yooyu moom mooy feeñ fii kenn ku njëkk ki dafa wax ne dafa amoon ñaari waajur yoo xamante ne dañoo nekkoon mag loolu tamit nekk lu ci am solo mooy li yàlla subhanahu wa taala waxoon ne bu fekkee nekk nga ak say ñaari waajur ba kenn ci ñoom nga fekk ak magam wala ñoom ñaari ñëpp ñu nekk ay mag na nga oyof ci ñoom nga leen di ñaanal nga leen di taxawu ndax jamono jooju lañ ko gën a soxla ba nga tollee ci néew doole ñoom ñoo la doon taxaw bu yàlla bu la yàlla defalee gudd fan ak ñoom di nga dem ba ñoom situation bi soppeeku ñu néew doole yow nga am kàttan war leen a taxaw war a am yërmande ak cofeel ci ñoom kooku daf ne moom daawul lekk lu dul mu jox ay waajuram ñu lekk ba noppi daawul jox njabootam wala moom muy lekk te joxul ay waajuram ñu lekk ba noppi benn bis mu dem di ratti ji ak a dem ci àll bi di ut lu mu dundalee njabootam topp àll bi di wër nee na ci genn garab la doon dem di am lu mu fay wër ba mu guddi mu yeex a delsi bi mu delsee ñëw fekk ñaari waajuram nelaw ay doomam yu ndaw ñi ngi toog di ko xaar ak njabootam ngir mu indil leen lu ñu reere mu ñëw fekk ay ñaari waajuram di nelaw mu ne du jox njabootam ñu lekk du lekk li fekk ay waajuram lekkuñu comme nu mu ko daan defee naka jekk mu taxaw fa di leen xaar ba fajar jot nee na samay doom ñi ngi jàpp ci samay tànk di xëcc samay tànk di jooyaloo ba fajar jot nangu ma leen a jox ñu lekk bi ay ñaari waajuram yeewoo ci fajar mu jox leen ñu naan ci meew ma lekk ba suur mu soog a jox njabootam soog a lekk mu ne rafetal googu ma def sama digganteek ak samay ñaari waajur ci war ma googu ma am ci ñoom bu fekkente ne yow yàlla yow rek yaa taxoon ma def ko kon génne ñu fii nga xamante ne ñu ngi fi bi mu waxee loolu ci la xeer wi daal di xëcc tuuti waaye xëccuwul ba ñu mën a génn mu am espace bu ndaw bu génn bu ubbeeku loolu di wane tamit dayoo bi nga xamante ni def njëkk jëmale ko ci ñaari waajur am na ko rawatina ci jamono joo xam ne jamono tële la jamono néew doole la keneen ki daal di ñëw ne moom dafa amoon benn doomu baayam boo xam ni soxna su mu bëggoon la bëggoon ko loolu moo ko gënaloon ku mën a doon ci jigéen nee na mu mu mu ko doon sàkku ngir mu bàyyee ko boppam mu àgg ci moom soxna sa lànk waaye dem moom dafa bari woon alal waaj dafa amoon alal loolu tamit di wone tentation wu alal léeg-léeg nit ki bu alal bëree ci loxom day yaakaar ne lu ko neex def ndax daanaka buntu boo fëgg mu ubbeeku bu fi diina nekkul jikko ju baax newu fi rek alal ji day daal di mujj nekk luy yàq te loolu bëri na léegi ci suñu société yi koo xam ne yor na alal te xamul alal ji lu tax mu yor ko responsabilité bi mu laaj newul ci moom ndax defaruñu ay jikkoom li yonente bi alayhi salaam waxoon mooy nicma almaalu salih fi yadi rajul as salih alal ju baax dara gënu ko bu nekkee ci loxo waaju baax waaye bu nekkee ci loxo koo xamante ni bi baaxul defarul yàq lay jur kon nga gis kooku bi nga xamante ni ndaw si dem na ba soxna si dem na ba toll ci ay jafe-jafe ba situation bi metti ba tar dafa del si waat ñëw laaj ko xaalis nee na mu jox ko téeméer ak ñaar fukki dinaar ne ko mu bàyyee ko ak boppam ndaw si ñàkk pexe tax mu ne ko acca nee na mu dem ba dara desul lu dul mu àgg ci moom fi góor di àgg jigéen ci mën a àgg ci moom yépp def na ko ba loolu rek des ci ndaw si na ko daganu la benn yoon ngay sol jaaro bi lu dul ci àqam mooy li muy bëgg a def ngir àgg ci moom waru koo def lu dul ci loo xam ne àqam la nee na bi mu ko waxee loolu la xelam delsiwaat ci boppam mu daal di jóg ba mu daal di koy bàyyi ndax fàttali googu mu ko fàttali rek nee na tax mu bàyyi ko te fekk ne kooka mooy ki mu gënoon a bëgg ci kaw suuf nee na mu bàyyi ko yamu ci waaye alal jam ko joxoon mu ne ko yóbbu ko mu ne loolu nga xam ne def na ko ci bàkkaar nekk ci kanamam dara terew ko ko woon mën a def lu dul fàttali buñ ko fàttali kàddu guñ ko fàttali xelam delsiwaat ci boppam siwaat ci yàlla tax mu bàyyi ko ginaaw bu mu ko mënee def mu ne yow yàlla bu dee loolu sa jëmm ji rek moo taxoon ma def ko kon ubbil ñu fi nga xamante ne ñu ngi fi loolu tamit di wane dayoowu bàyyi dara te yàlla tax ku bàyyi dara te yàlla tax yàlla wutalal lu ko gën li mbiru bànnee xam la woon rek lu éphémère la loo xam ne bu ko defoon ca saasa da koy daal di fàtte bànneex la woon boo xam ne bànneexi bakkan la nekkul luy continuer nekkul luy sax lu mu neex neex neex boo ca paree paree nga ca loolu lay tekki boo ca paree pare nga ca waaye lan la ko jural bi mu ko bàyyee li mu ko jural mooy yàlla muccal ko musal bakkanam kon ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla wutalal lu ko gën ñetteel bi daal di ñëw wax ne moom dafa amoon ay employé ay liggéeykat yoo xam daf leen embauché woon di leen liggéeyloo mu leen di liggéeyloo journée bi yépp di leen fay benn dinaar kenn ñëw ci xaaju bëccëg bi fekkewul suba gi ne ko dama lay liggéey li des ci bëccëg bi nga fay ma mu ne ko waaw waa ji ñëw liggéey waaye dafa jàmbaare ci liggéey bi liggéey liggéey bu bari comme li kenn di liggéey ci journée ci journée bi yépp moom mu liggéey ko ci demi journée mu fay ko dinaar bu mat sëkk ñi liggéey ñi liggéey bis bi yépp kenn ci ñoom daal di gis nekkee mu ko fay ak ñoom ñoo tolloo te liñ liggéey ci temps ci waxtu tolloowul mu ñëw ne ko waaw yow naka ngay fayee kii li lu tollook man li ma liggéey te maak moom toll tolloowuñ liggéey mu ne ko sama alal la maa ci def lu ma ne xam naa li tax ma fay ko ko waaja daal di gedd la mu ko waroon fay ne kon dem naa sama yoon mu wax wax waaja gedd dem yoonam bàyyi ko xaalis ba ba waaja demee mu téye fa xaalis ba dencal ko ko lekk ko ne ko kon dem nga noonu la man raaba raaba nasibuhu dem nga perte nga déedéet daf ko dencal am laaloo ko dem ba moom alal ji mu bari la woon dem ba alal ji yàqu ci loxoom mu dellu ci xaalisu waa jooju commencé koo yaxanal di ko yaxanal ba alal ji mujj bari lool ay xarak maanaa ay bëy ay eh, nag gëléem ay jaam lépp alali waa ji moo ko moo ko jur mu toog benn bis rek waa ji ñëw ne ko sëñ bi man de liggéeyloo liggéeyloo liggéeyaloon naa la benn bis bàyyi woon fi sama salaire léegi nag dama ko soxla jox ma sama salaire waa ji ku ñàkk kersa lay nurool wala boog ku tàng ku dëgër wax lay nurool ne ko jox ma sama alal mu ne ko alal ji ngay gis ni yépp de xool ba fa sa bët yam yaa ko moom mu ne ko bul ma bul ma ñaawal bul ma sabote niñ koy wax naa bul ma fontoo mu ne ko fontoowuma la alal ji yépp sa alal la waa ji daal di jël alal ja yépp buub ko yóbbu bàyyi lu ko fa benn dërëm mu bàyyi kook alalam mu yóbbu ko te neewu ko benn dërëm nga fi bàyyi woon xaarama jox la benn dërëm alal ji man maa ko moom ndax man maa ko yaxanal mu ne yow sama borom bu fekkente ni loolu ma def yépp day dama koo def ngir sa jëmm ji nang ñu gi xettali génn ñu fi nga xamante ne ñi ngi fi bi mu waxee loolu ci la xeer wa daal di ubbeeku ñu génn di dox xadis ba mi ngi ci saxiihul buxaari ak saxiih muslim di xadis boo xamante ne xadis bu màgg la lu bari lañ ciy jëlee ci ay njàng ndax yonente bi alayhi salatu wasalam nettali gi mu ko nettali nettaliw ko lu dul ñu settantal ko ñun xeetu lislaam gis jëf yu màgg yooyu nga xamante ne ñooñu def nañ ko ba loolu waral yàlla defal leen xar baax bi te loolu bokk na ci li ñu jàngee ci xadis bi mooy yàlla mooy defal ku ko sob ci ay jaamam yu baax xar baax loo xam ne baaxoowul di woon di am yàlla subhaanahu wa taala def ko loolu nag bu amee nekkul ne day daal di nekk puukare boo xam ne kooka day koy daal di tàmbali di ko puukare woo di wan ne kon moo gën ci nit ñi ay gaawam tàmbali di ko puukare fu ñu toll naan moom la yàlla defaloon léeg moom la yàlla defaloon laa loolu nekkul jubluwaay ba waaye jubluwaay ba lool yàlla moo koy defal ku ko sopp ngir dimbalee ko ay jaamam ak dooleelee ko dëgg kon boo amee loolu rek lañ cay jàngee yàlla subhanahu wa taala defal leen xar baax boobu xeetu lislaam war caa mën a jàngee ngir xool jaamu yàlla yooyu ñu def mu bokk ci liñ ciy jàngee dëggu sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala ci loo xamante ni nit ñi yëguñ nit ñi xamuñ ak am solo jëf joo xam ni nit ki da koy denc digganteem ak boromam nit dafa war a am lu mu garde lu mu ngànnaayoo digganteem ak yàlla ci jëf joo xam ne danaan lii dama koo def yàlla rek moo ko xam yoonu jaam ñi newu ci mu yamale ko ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala bis mës naa ñëw jëf jooju amal ko njariñ lool ndax ñii bi ñuy nettali jëf ji taxawaay ba moo waral ñu nettali ko waaye seen digganteek seen borom la yemoon waaye lépp lu nit def ci lu baax rek daanaka du am jàmm te deful wala mu wax lu tax nit ñi xam ko loolu baaxul kon lii nii ñu jàngee ci xadis bi day wane am solok nit ki am lu mu bàyyi digganteem ak boromam subhanahu wa taala mu bokkaat ci tamit am solok ñaan rawatina ñaanu koo xam ne dafa nekk ci njàqare beneen bi mooy nit ki warta xaddi ci yërmande yàlla subhanahu wa taala mu bokkat ci itam mooy doomu aadama bi waroo bàyyeeku benn yoon lu situation bi ñàng-ñàng kër-këril nga jéem a ut ay solution waaye bul toog ne lii moom kenn amu ci pexe lu nekk rek nit ki war na cee am solution ñoom ñett neewuñu fii moom dee rek moo ñu fiy jëlee ndax lii mënuñu koo tijji dal di yem foofu waaye dañoo xalaat di xalaat ba baa yàlla def ñu daje ak loo xamante solution la kon loolu li muy tekki mooy lu situation bi jafe-jafe nit ki nay continuer di yaakaar ne pexe war naa am pexe war naa am kum ci war a waxtaan mu waxtaan ci ak moom kum ci war a jàppalanteel mu jàppalanteel ci ak moom mu ñu ciy jànge itam nit ki war a bañ a ak lu jëf rëy rëy rëy nga bañ caa naagu mais nga delloo nangu jëf ja ak mbaaxam delloo ko ci xam-xamu yàlla moo tax ba ñuy ñaan ñu tegginu seen digganteeg seen borom ne bu fekkente ni li yow yaa taxoon ma def ko kon xettali ñu kon dimbali ñu loolu nekk xadis boo xam ne bu màgg la ñu fi jëlee tamit ne doomu aadama warta waru ci li muy gis ci kaw li tax warta waru ci li muy gis ci kaw mooy léeg yenn ñi nga gis leen mu yor alal ju bari nga yaakaar ne moko mom fekk ne xeyna momuko ndax leg leg alal yi nga xamne dañ koy gis ci biti muy feñ ngay gis nit mu nek ci loxom bo xamul namu deme mandu ca te baña gaaw di wax nan diw amna alal diw amna li diw li te fekk ne waxula deug deug alal joju mbiram lan la ndax nit ngi ni ko yoron alal ju bari jo xamanteni ndakate momu ci dërëm keneen nako mom nit ngi ni ko xamne ne na ak soxna sumu mu defal lu ñaaw ku ko gisoon ba muy dugg ca fam nekkoon ak soxna si di nga ne def na lu bon fekk na jotul def lu bon dem na ba ca biir am lu delloo si xelam mu bàyyi jëf ju bon ja nga xam ne bëggoon na koo def kon loolu yépp li muy tekki mooy gën a tey ci bañ di gaaw a ci nit ñi ci li ngay gis ci kaw balaa ngay def ay bàkkaar ndax di wax ci nit ñi dafa am dayoo bu rëy rëy bu mu am te léegi suñu jamono dañu ko woyee fa lool gaaw mën a wax ci nit gaaw a mën a juger ci nit fekk na lépp ci ay mbir yu feeñ nii rek ngay sukkandiku léeg ci ay njott yu doyee di sax ngay sukkandiku di def ay spéculation di wax lo xamne mi ngi lay xajamalal sa diine di la yàqal sa diine ndax li yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne li ëpp ci li nërmel nit ñi ci safara mooy li nga xam ne seeni làmmiñ moom moo koy fàbbi moo koy fàggu te li làmmiñ di fàggu ci li gën a mën a indil nit jafe-jafe yowmal qiyam bokk na ci mooy li muy wax ci nit ñi comme ni mu ñëwee ci hadith ibn abbas di hadith al muflis kon nit ki war nay moytandiku bu baax a baax lu mel ne jugement yooyu nga xam ni dañ koy def ak dayoo jaamu yàlla yi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu wasallam tudd na ko fi ñu ciy jàngat tamit li nga xamante ne bi mooy tuub am solo gu mu am solo nit ki mën naa xëy na sax bëggoon a def lu ñaaw dem ba xelam nekk ci waaye bu ca delloo ginnaaw tuub jéggalu yàlla jéggal ko bàyyi googu mu bàyyi ñaaw teef ba mu naroon def sax te mënoon koo def yàlla wëlbati ko defal ko ko lu baax ndax boo xoolee kii daanaka deful dara ki nga xamante ne bi moom moo bàyyi soxna si mu bëggoon a séqal te dem ba mu noon kaa def bàyyi ko kooku dafa bàyyi rek deful waaye bàyyi léeg-léeg day mel ne comme jëf ni jëf di nekkee lu baax lu ñuy fay nit ki yool léeg-léeg tamit yu ñaaw yi muy mën a def ba noppi bàyyi ko noonu ko noonu lañ ko ci fayee yool kon loolu day di tekki tamit am solo nit ki bëre ak bakkanam fu mu toll kémtelaay kàttanam ngir dox diggam ak yi nga xamante ne bi mooy ñaawtee fi ak bàkkaar yi rawatina ci jamono joo xamante ne day fekk sax mu mën ko woon a def mu bàyyi ko ñu ciy jàng itam ne wa man yattaqi llaha jaal lahu maxraja koo xamante ni ragal nga yàlla subhanahu wa taala saa boo demee ba nekk ci ay jafe-jafe yàlla dina la wutal buntu yàlla dina la xettali yàlla dina la génn ci sa xat-xat boobu naka noonu tamit karaamaatul awliya muy yu baax ak teraanga yi nga xam ne yàlla dina ko defal ay gaawam di leen ko dëgëralee ak di ko dëgëralee dëgg ay mbir la yoo xamante ni wér la ahlu sunnati wal jamaa dañ koo gëm te duñ ca xaabaabal di ca teg yoo xamante ni bi waru caa mën a topp waru caa mën a tegu xadis a bon xadis boo xamante ne xadis bu màgg la di bokk ci nettali yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasallam nettali na ko ci ay xew-xew yoo xam ne jàlloon na ci xeet yu jiitu jàng yu bari lañ ci mën a jëlee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 اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله